suñu gën a tey bi wala suñu sëriñu tey bi duñ leen ko présenté ndax réew mi xam nañ ko bitim réew xam nañ ko àdduna sax xam nañu ko muy sëriñ Ahmadou Diop borom kokkeeg ndam macha allah nekk na borom xam-xam nekk nitu yàlla waaye nekk borom kurus borom asraar doon na ko de dëgg la waaye jàng na ko nag am ci ay certification am ci ndigal waaye tamit ñu wax ko xamal ko ni nag wax dëgg yàlla lii mu ne. am na ci ndigal te am na ci ndogal am na ci sañ-sañ na ko def ndax moom la xam te moom la mën looloo waral nag dañuy baaxantoo wala sax dañuy am cawarte pour ñëw seet si ko ndax dañoo bëgg di waxtaan ak boroom xam-xam yu mel ni moom donte ko sax xam nañ ni néew na léegi ci jamono jii waxtaanee xam-xam mu waxtaanee tamit njariñ waxtaanee tamit jafe-jafe yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ciy dugg ba pare tamit saafara yi nga xamante ni bëri na lool lu mu ci mën a génnee Sénégalais yi tey dinañ bu ñu wax bu ñu génnee foofu dinañ waxtaan ci actualité njëkkee ci situation réew mi gis nañ Ousmane Sonko boobu ba léegi génnul ndax laataa Macky Sall di wax dafa génn mel ni dafa yoroon carnet bi Macky Sall waroon a wax ñuy mel ni dañuy waajal arrestation ndax bi Macky sàll génnee rek ne déposé du troisième mandat xel yépp dafa teey ñu ne est dafay waajal ndëgg sërëx Ousmane Sonko mu bañ a dem est-ce que sax élection dina am loolu lépp dina ci waxtaan ak sëñ bi bay waxtaan tamit ci diggante Pawlish Mbaye ak waajuram bu góor bi nga xamante ni amul benn yoon satisfaction ci doomam mu nekk loo xamante ni phénomène bu tàmbalee bëri ci réew mi ndax buzz mi tàmbalee fëkk bopp xale yi balaa boobu dañ koy bàyyi moom suñu sëriñ bi mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan ñu doog dugg ci waxtaan bi ndax waxtaan bi te dina xumb dina waaye njariñ li dina bari tey sëriñ bi bismillah auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaan irahim waltuf binaa wa xawwinaa wa kun binaa wa ablanaa wa fahimtani rabbanaa wa salliyan ala nabii wa salli waqti bi xaajati kulli muslimin barkeb borom Tuuba mhm. barkeb borom Tuuba barkeb borom Tuuba sunu yaakaar xaadim rasulillah mhm. sëñ Lamine mhm. maa ngi siyaar bokki internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñëpp di ñu seetaan ci fii nga xam ne si ne baaxoo nañu fee gisee. waaw muy boo xam ne si ne suñu jëm miin na ko ñun tam miin nañu ko. waaw balaa may wax nag ci actualité. Mm-hmm. damay mastawu sama sama sama sama bokku daara. Mm-hmm. di sama collègue. waaw di ko xam ne yàlla dogal na ne liggéey bii man ak moom ñoo ko nuróole. waaw mu doon doomi soxna. waaw ma doon doomi soxna mu man ko lool. yàlla dogal mu wax ci réewam ci xalaatam ci gis-gisam mm-hmm. wuute gis-gis yi ñu réew mi ñu jël ko dugal ko kaso maa ngi koy ñaanal yàlla ci baaxu sëriñ baara mm-hmm. darajey sëriñ Cheikh Matilay mi nga xam ne si ne moom la yaakaar muy Cheikh Baara Ndiaye mm-hmm. yàlla na ko suñu boroom génne ci foofee mu nekk bañ faa dugal kenn ci nam gën a gaawe ah. waaye loola nag dañ jàpp ne ay màqaama a yu war a yokk ci moom rek ah, dóoroon gaañ ci moom ndax tooñu tax mu dugg fa daa wax gis-gisam ci réew mi te loola ku nekk sañ na ko maa ngi koy ñaanal yàlla njabootam géej yàlla nañu suñu boroom sàmm amiin waay ci darajey Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba man nag yàlla dogal na ne Cheikh Baara jaxasoowul mosuma mm-hmm. koo gis nag mm-hmm. waaye yàlla dogal na ne mm-hmm. ba bañ bokkee sëñ Tuubaa lañ bokk lépp dëgg la kon maa ngi koy masawu di ko ñaanal yàlla te it saa bu ma xëyee danaa jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi ñaanal ko suñu borom waye fan mbiram ba foofee mu nekk suñu borom jële ko fa yóbbuwaat ko ci ak njabootam mu uf leen ci daraje Seydina alayhi ñu jaare fa itam ñaanal ko bu baax a baax suñu sëriñ bi moom Cheikh Bara Ndiaye ndax ay soppeem lañu dañ koo yàgg di topp ndax ci li mu ne bëri na ñoo xamante ni ci loolee lañu xamante moo tax te suñu fréquentation ñu bari ay soppeem lañ ñu bëri jëflante nañu moom te si kàddu gi benn la seede bi benn la mooy nitu yàlla la te tamit ku am yar ak teggin ku bari njariñ la moo tax nañ ko ñaanal yàlla foofu mu nekk xam nañu li place am deful lu ko fa yóbbu waaye nañ ko ñaanal yàlla mu génn nu mu ko gën a jaawee waxtaan bi tey dañ koy tàmbalee sëriñ bi ndax dafa am loo xamante ni xame nañ ko ci kër gi gannaaw sa jëmm ji ñuy dégg saa su ne rab ku ne yàpp na ko nag ku ne ñu ngi naan rab fii rab lee dëgg dëgg dëgg solos rab dañoo bëgg a xam sëñ bi tey naka la rab di duggee ci nit ak lu mu ko mën a yàqal. waa kay sëñ Lamine. Hmm. rab dafa nekk mbir moo xam ne ni mu duggee ci nit moom loolu nit du ko gis waaye nit ku maana doon ci àdduna rek am nga rab waaw. benn mu doon boo xam ne si ne dafay diggaale ak yow. waaw te la muy diggaale ak yow doo ko defal. mu lay indil ay gàllankoor wala mu ne ay jafe-jafe. Hmm. wa ilaa rab taxaw pour jox la xam-xam. Mm-hmm. te yow fas yéene woo jël xam-xam ba. Mm-hmm. muy nit la ay gàllankoor. wa ilaa say maam. Mm-hmm. amoon ay rab amoon ay tuur amoon ay xàmb. te yow mi nga xam ne si ne yaay sët bi. waaw fonkoo ko bañ am fu dëkk ci yow. Ah. loola itam dana tax rab di sonal doomu aadama. rab nag dafa doon loo xam ne dafa bon. li tax ma bon mooy rab dana fekk doomu aadama. mu toog ci benn bërëb waaw nga xam na si ne maanaam bu xëyee suba ba ngoon jot mën naa dem toog ci benn bërëb di wax di wax ay nit. Mm-hmm. te kenn gisul ki muy waxal. waaye loolu di waxtu. waaye loolu sax buñ koy xool tey. waaw mbir la moo xam ne. maanaam loola moom dafa dafay bokk ci li gën a wayef. ci li rab di def. waaw waaw ci li gën a wayef. maanaam waxtuloo nit koo xam si ne da koy waxtuloo. muy wax te yow doo gis ki muy waxal. waaye nag am na ko muy waxal. Mm-hmm. waaw waaye nag ci biir loolu itam. ñi nga xam ne siine ne rab daf leen di gàllankoor ci yii. Mm-hmm. nga xam ne si dañuy dem ba doon magum jëm. Mm-hmm. di tuur ndox ci kaw lal. man ne si nañoo yeewu guddi. waaw fekk ne tëdd na seen soxna wala tëdd na seen borom kër ñu singuwaay ko loolu rab da koy def. rab it fi mu nii am na jigéen ñoo xam ne si ne dana dem ba dugg seen ñeent fukki at duñ sëy mm. rab di leen may bunt ba may leen bunt boo xam si ne dañuy sëy mhm. mu kale leen ci am doom xam ne si ne dañuy lu ñu ëmb rek day tuur day tuur wa ilaa sax duñ ca far jaar loola rab daf koy def rab moo lay fekk nga yor alal ju ne gàññ mhm. mu jekki-jekki indi la gàllankoor say biir di yàqu benn par benn mhm. ba mu jàgg alal joojoo doon ay bor yoo xam si ne yooyu war a fay la rab oh. Euh, moo lay fekk nga yor sa entreprise bu baax a baax a baax a baax. waaw di doxal mu xëy benn bis rek taxaw tem ci gàllankoor sa mbir. ñi nga xam ne si ne dañ laa wóolu woon bëgg la. Mhm. te maanaam it amoon ci yow amoon ci yow kóolute. waaw ñëpp dañu commencé indi ak seen diggante ak doy di commencé cee am. nga xam si ne dootoo waxatee kenn ba mu gëm la. doot kenn du amul pas-pas jëflante ak yow. loola nag mooy kum rab rab. maanaam rab moo lay tëj tëj boo xam ne si ne daf lay wóor na yow mii amatoo dara mënatoo dara mm-hmm. te yoroon nga léegi nag ci biir loolu dafa am ay xeeti càngaay yoo xam ne si ne nit ki dana ko sangoo te du gis dara mm-hmm. nga ne ma nga ñëw ci sëñ ma na ko defal ma càngaayu rab ma defal la càngaayu rab waaw nga sangu na man gisuma dara waaw luy waral ah, loolu waaw loolu li koy waral mooy rab day dafa am dafa dafa am ay prothèse su bëggee jëfandikoo nit ki dëgg dëgg dëgg dëgg dafa am lu mel na saaru baas boo xam ne si ne daf koy dif ci yaramam bépp. nga xam ne si ne soo bindoon aayatul kursi bi nga xam ne si ne bokk na ci li gën a aay ci rab. waaw ak ak saytaane. waaw boo ko sange woon sax du ko maanaam du laal nit ki fenn. du ko jariñ déedéet ba war kaa mën a jariñ. waaw loolu sëñ bi ni koy dindi. waaw loolu nag su boobaa nag da ngay xool mbirum nit ki. xam sarax bi nga koy war a génneel ngir kumbre googee nekk ci aw yaramam deñ pour dindi kiiraay bi pour dindi kiiraay bi léegi nag cangaay loolu bu fekkente ne sangoo na ko waaw dana deñ waaye yow doo doo doo yam foofu dangay ngay daal dàkk biddiwam bi nga xam ne si ne moo jàpp biddiw bi nga xam ne ne moo moo jàpp bayti maritam ak baytu nafsam ñaari biddiw yooyee ñoom ngay jël comparé fexe bañ denn pour rab bi boo ko defee rab bi di nga xam sarax bi nga xam si ne moom koy defal ba boo boo boo sangee ki ngay sang rab bi dana ko tijji loola nag dafa doon mbir moo xam ne doon lu ñuy làmb déedéet ñun dañ koo doon ci sunuy waajur mm-hmm. sama waajuru jigéen day faj mm-hmm. sama waajuru góor moom li ma yor lépp daanaka ci moom laa fa jëlee ak li ma jàngee ci àll bi waaye ci biir loolu itam nag rab moo lay fekk maanaam nga war a door ku am dara waaw mu teg la benn place bis bu set mu di la yaakaar loo nga xam ne saa boo xëyee da nga tey dina baax nga di ko def di ko def di ko def ba màgget wala wala nga di ko def ba faatu doo yor dara. loolu rab moo koy def. rab mooy fekk koo xam ne si ne maanaam nit ku sell la. Mm-hmm. mu fexe ba dugal ko foo xam ne si ne dafay dem ci aw wanag wala mu dem fenn foo xam ne si ne maanaam foofu maanaam jël awraam. bi mm-hmm. ca fo. maanaam ba yëg boppam. loolo bari na xale yoo xam ne si ne ñu ngi koy wéyaale. Mm-hmm. rab mooy bàyyi ba nga tëdd guddi. te koy def loolu. waaw raba mooy bàyyi ba nga tëdd guddi. waaw am na xale bu jigéen wala xale bu góor boo xam si ne danga ko gis ne kii bëgg naa ko. Mm-hmm. xale bu góor bi gi bëgg xale bu jigéen bi. Mm-hmm. rab dana fexe bàyyi ba xaaju guddi mu soppeeku xale bu jigéen boobu ñëw yeele ci ay nelaw. Mm-hmm. sëy ak yow. loolu nag moo tax koo gis mu di ko def rek. waaw day ànd ak tëju tëju wërsëg. day ànd ak tëju tëju wërsëg. loola itam nag moo tax sëñ Lamine moo tax rab faw ñu teel ci jub ca saa waaw rab moom ku mën doon ci àdduna yi am nga ko ndax am na ci jigéen ñu bari ñoo xam na si dañ lay romb nii te ñu ngay wéyaale rab ndax rab dafay tënk nit ki mhm. ci maanaam mu war a am boroom kër ñooñu nag li ci li ñi koy def ñi ci ëpp mooy jigéen ñi nga xam ne si ne buñ tolloo ci gis mbaax. waaw seen biir day metti boole koog yaramu tàng xaaju bopp bi di metti loolu rab moo sànni ngelaw te ngelaw loolu mu lay sànni li fekk sa deret mi ngi tuur ci suuf rek. moom mi ngi yittewoo ci yow li mu yittewoo ci yow nga xam si ne maanaam dafay dundaat ci yow. sëñ bi wàllum rab buñ ko doon toog di ci waxtaan a yow émission la. waaw doon toog fii ba. ay fani fani fani fan. mën naa la cee wax lii ak lii leen lu ne wax la la koy faj leen loo xam si ne bu la dalee nan ak nan nga mën dama def ba mu saafara. allah waaye nag. bu loolu weesoo. Mm-hmm. dañuy jëm ci wàllu seet. ndax seet. waaw ñu bëree bëree bëree fi toll nii daw na jublu ma. Mm-hmm. ci wàllum seet. waaw ndax damay seetal kii gis ay mbiram mu dem wax kee léeg-léeg sax dana am ñoo xam ne day ñëw na ma diw sama benn xarit moo boole ak yow waaye damay xam ne dañu sama numéro lañ gis si internet bi rek. waaw du tee boo ñëwee dana la wax la ñuy seete. Mhm. ak na ñuy seet. Mhm. suñ sa àggee ci yow it danañ la seetal seet gu leer nañu seet moom amu ci naan naan la tey ëllëg. dañ lay da ngay joxe léegi la ñuy seete ñu seetal la jooni jooni woo la téléphone wax la lu leer naññi. jeex na tàkk loolu itam la koy waral mooy bu ñu lay seetal faw danañ la wax sa biddiw bi nga xam ne si moo yor sa wàllu alal lan mooy taxawaayam biddiw bi nga xam ne si ne mooy sa porte bonheur lan moo koy tijj biddiw bi nga xam si ne moo doon say moo yor sa relation hmm. biddiw boobu lan moo koy doxal hmm. biddiw bi nga xam ne si ne moo yor sa biddiw tawat lan moo ca nekk hmm. léegi lijjanti say mbir ba yow foo jëmati say mbir baax loola nag lenn mënula koo defal ci àdduna dul seet seet képp waaw seet nag dañ cee bari ay façon am nañ ci ceet goo xam ne. waaw seetu xaar la bu boobaa moom doo mënoo cooy weesu juróom-ñetti nit. Mm-hmm. ñooñu nga ci mën a xam seen mbir ci génn guddi. am na ci seet goo xam ne si nag moom seet en distance la. waaw mën ngaa nekk ba États-Unis ak Allemagne ak Europe foo man ne àdduna boo joxee sa turu joxe sa date de joxe sa turu sa sa turu yaay. Mm-hmm. incha allahu la bu nu neexee bala moo mat fukki minute. waaw ñu woowaat la téléphone wax la lu ci seet. loola nag dafa dañoo yor ay rawxaan yoo xam ne dañu koo tërbe yow ba rawxaan yooyu tey jii buñ soxlaa xam dara ci nit bu nu ko laajee mu ne mu ne mu ne nit ki nangam ak nangam la loolee ñu lay laaj ci seet gi nag suñ paree dafa am sarax boo xam si dañ ko ciy génne mhm. jamono bii waaw ñu baree bari da maanaam seet gi dama ciy xat a xat xat xat ba nga xam ne dafa man léeg mu xaw maa yàqal sama yenn liggéey. dëgg la dëgg la waaye bëgg nit ñu xam ne. Mm. seet gi ñëpp maase maase bëggandoo xam lu xew waaye fii ci Serigne Axma moom. ku fi ñëw. Mm-hmm. lu nekk ci yow da ko macha allah waaw ndax seetu ndax seetu biddiw yaa ngi fi. waaw yaa ngi fi. dëgg la seetu listixaar yaa ngi fi. waaw te seet gu nekk gum ci mën a doon faaw dina la wax li nga xam si moo nekk ci yow seet gu wóor. gu wóor gu wér goo xamante ni jooni jooni la. fii la am waaw jooni jooni la. seet goo xamante ni. seetu rawxaan ak. seetu ram la bu mu mënti doon. waaw tey fii la am. loolu la itam la cay tollantiku. Mhm. dafa am mbir yoo xam ne. képp koo xam ne nekk na ci yow. bu la neexee nga jégga waaw ndax la koy waral mooy. Mhm. bu yàlla dogalee. waaw nga ne ci nga doon koo xam si ne danga say mbir da doon baax bu mujj yàgg mu yàq. waaw nga xam ne yow wóor na la ndax am na ñu bari ñoo xam si ne lool dañ leen dal maanaam dugg ci ay mbir mu baaxle ba mu yàgg nga yàqule nga commencé yàqule waaye yëg nga ne yàqule waaw waaye am nga jafe-jafem ñaan mm-hmm. loolu itam nag ñaare da ngay tënku waaw faaw nga fexe fitarñiku dem ci sëriñ boo xam si ne dana la mën a xoolal sa mbir mm-hmm. ba wax la li xew am na ñoo xam si ne fi doon nii dana yor ay bor ba mm-hmm. duñ la mën a wax sax bor yu ñu yor maanaam fan lañ war a fan lañ fan lañ war a jëm gauche lañ war a jëm wala droit lañ war a jëm. waaw mais am na loo xamante ni sëñ bi. waaw faaw ñu wax ci. Mhm. muy lu sonal sénégalais yi. Mhm. dem nañ ci fu ne. Mhm. dégg nañ ci ku ne di wax. pour te pour ñu am satisfaction ci loolu. problème lay doon ndax nee nañ dafa jafe. muy wàllum boole ay nit. ci déggin sax dina jafe ndax dëppale ñaari xol. sëñ bi loolu jafe na muy noog sëñ bi. waa déet waa xam nga. yàlla moo wax ne allahu jaamiu naas mhm. yàlla mi nga xam ne kay mën naa boole nit ñi kooku moom tëliwul dara waaye tey jii bu fekkente ne amoo ci aw yoon kay waaw koo bëgg ñaar bëgg a da leen boole ci lu jafewul waaw garab yu neex rek waaw am naa ci noob gu ma ci def goo si ne ci mbëpp jënd lañ koy sox dem suul ko fee ci tefes ga maanaam ki nga noob saa bu duus géej yëngutoo rek maanaam am xelam jaxasoo jëm ci nga xam si ne duut la mën a téemuñ ci àdduna te hmm? ñaari garab yi saf suukar rek nga dog bi dog bi liggéey ci la nga cee liggéey boole koog téere bi laxas ko ci wut bopp jën sox ko ci dem suul ko ca tefes ga saa bu ndoxum géej jógee rek waaw te ndoxum géej ni la defa nii waaw waaw saa bu ndoxum géej jógee rek faaw kooku am xelam daal xelam ñëw waaw loolu nag boobu wér waaw noob noob moom dafa bari fa fi mu nii sax ñi nga xam ne si ne dañuy am xale bu jigéen boo xam dañ koo bëgg waaw te jàpp na ne xale bi am na ku leen ëpp wërsëg te mën na faa jaar ku ca mën na faa jaar waaw nang ko seeni loxo waaw tey bu ñëwee mën naa am loxo xam si su ma ko liggéeyee ba pare dama lay wax na la demal nga fekk garab gu amul pax mhm. nga sànni ko dugal ko ci pax waaw yow kooku boo ku tëkkul kenn du ko takk na xanaa boobu gën a soo ko tëkkul mhm. kenn ci àdduna du ko takk yow rek yaa koy takk waaw tey jii ñi nga xam ne si ne dañoo am xale bu jigéen boo xam ne waaw daf leen a wan ginnaaw da leen a wor daal maanaam da leen a wor waaw xam nga loolu ñaare su amee rek waaw dafay mel ne xale bu jigéen bi am na keneen ku mu gis koo xam ne si ne moo la ëpp wërsëg waaw su boobaa gis nga Lamine dana la yëkkati waaw Lamine jox ma Aliou Dieng. Aliou Xanjar Dieng Aliou Xanjar Dieng wiir ngeen jox ma jox ma Aliou Xanjar Dieng. bisimilah waaw. mi kii ñi nga xam ne seen sax tubaab daf leen a daf leen a daf leen a daf leen a wor. tubaab tubaab dañoo am tubaab mu jaagu tubaab ba jaar ci ginnaaw wor leen. kii am na benn talsam boo ci liggéey boo xam ne si mooy xuddaamu fu bi'ita lazi kafara. Mhm. muy allahu ahtama yosin boo ko doon liggéey tey da ngay wut doomi poobar nga liggéey ko ci ba pare maanaam jàmbaar saafara si teg ko ci teg ko ci xali sawara waaw maanaam di ko wér de ba mu ñëer nga daaj pot bi dem sànni ko ci sën faw faw faw tubaab bi dana wër siwaat ko góor gi waaw ci xeetu noonu waaw noobu tubaab daal tey jii am na noob boo xam ne ne tey buñ koy liggéey ci sidditu golo xam nga golo du mooy banqaas golo waaw noob gi ma la wax du mooy golo moom bu jàppee moom jàpp na moom waaw golo bu jàppee jàpp na waaw sidditu golo maanaam sidditu tànk golo waaw ci laa koy ci laa koy jot la su ma jotee bu ma xëccee balaa jant sox ki nga bëgg faaw mu ñëw wuyu si la ci noob xam-xam am na waaw waaw tey jii bu fekkente ne nag da ngaa bëgg a noob nit ki ba pare nga noob ko mu bëgg la ba pare yow ragal la. Mhm. da nga may wutal Yakub yamar ciic bu bu xam si ne dafa bàyyi ko ci jur te kenn tëju ko. kenn tëju ko waaw am na yax boo xam si ne tey day maanaam day mel ne palaat nga xam si ne mën nga cee bind. waaw yax boobu boo ko dogee liggéey ci liggéey fekk ab xorondoom. nga nga xorondoom ba mu xóot. boole ko ak ya koy boole lem ak suukar yooyu suul ko fa. waaw ndaw ki ngay noob daf lay bëgg ba pare da lay ragal da lay bàyyi ndax am na ñoo xam si ne am nañu relation. waaw mais ñoom dañoo ragal ku jigéen. dëgg la loolu am na. waaw am na ñoo xam si ne am ñu relation. waaw waaye ragal nañ ko góor ka. waaw dégg nga. waaw tey ñi nga xam ne si ne dañoo nekk ay bitim réew Europe wala ñu nekk Angleterre wala ay xeet yooyu te nekk ak seen jabari tubaab ba mu yàgg mu jékki-jékki bëgg leen a wor. Mm-hmm. ñooñu ku ci wax ak man bu neexee ma àppal jox la délai. jox la délai te la la ciy liggéeyal loola moom tubaab bu mënut a fexe fexe ba rëcc. mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal xam-xam lu am la waaye nag bu la ko jaralee dangay ngay ay kilomètres bu la ko jaralee da ngay daj coono waaye bu la ko jaralee faw nga jëflanteeg boroom xam-xam dëgg mm-hmm. ndax Sëriñ Ahmad mi ñu jàkkaar lool boroom xam-xam la. goo xamante ne du suñuy wax waaye ñu bari ñoo ko boole maasoo wax ko kon nag dëgg la ndax ñun dëggal ko rek lañ mën mm-hmm. sëriñ ci loolu lañuy ñuy jàll waxtaan ci actualité mm-hmm. njëkkee ko nag ci candidature Macky sàll bi nga xamante ni mm-hmm. génn na lu yàggul dara ne du déposé candidature du déposé troisième mandat sëriñ bi noo gisee discours am waaw discours am boobu loolu mooy wax kilifa loolu loolu itam bu ko defee waaw moom la war a def dañu koy ñaan bu ci deltuwaat ginnaaw. moom Macky Sall waaw. ndax la mu war a def moom. waaw def na ko moom gis na ne mbir mii kat xam na ne nii la war a doxee mu teg ko fa mu war a aw. waaw doxe ak moom noonu. te mooy bañ doon candidat mooy a doon mais dañoo gis nii ci discours bi dafa mel ni. dafay gaaruwaale sax Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko fii leen toogoon. waaw. lu ma la ca waxoon dama ne la woon ay mbiram. Mhm. néew na doole. waaw nañ ko taxaw waaw maanaam mbiram bu fekkonte ne bi ngay toog fii keroog ma di la ko wax waaw dafa néewoon doole ci benn mm-hmm. maanaam dem na ba ci ba ci ba ci ba ci ñaar déet waay ah da xel xalaat ci lii ma la wax rek ku dij benn place waaw nga doon autorité waaw dëkk ba nga dëkk yaaku ko yilif waaw ñun la doo génn sax maanaam dem ci boutique bii sañoo ko wax nga dëgg te ngay meeru Ziguinchor waaw te sa doole nangu nan waaw maanaam doole nag dang koy nangu ak technique ndax borom xel mën naa def loo xam si ne yow mi ko def doo ko xam waaw def na ko pare waaye du xamoo li mu def waaye Ousmane Sonko dooleem néew na te it jamono bii Ousmane Sonko ñi ko ñi nga xam ne si ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko doyloo woon wóolu ko. waaw dañoo commencé maanaam mu lijjanti ba jariñ ci ñoom ba mu jox leen ay poste ba mu téye ko. waaw ñoo ñoo commencé wan ginnaaw. loola nag mooy at mooy mbirum sénégalais. mooy Barthélémy Dias ak ñeneen. ñeneen ak ñeneen su tudd wenn tur waaye ñi nga xam ne si ne moom ñoo taxawoon booloo tudd seen bopp yeewi askan bi. waaw ñoo dem ba mu jàgg xaaj ba woor usmaan Sonko. te Sonko fa mu fa mu fa mu nekk. Mm-hmm. takk derrière ñoo koy garder. waaw ñemewoo génn dem ci boutique bi. Mm-hmm. julli jiwoo tabaski. waaw ba nga fa duggee ak léegi lee mu def ñetti weer te kenn mënu la faa génne. waaw kooku moom bu ne la maala man moom. bay boo nga am am yaakaar ci ne loole moo la wax nag bu fekkente ne lépp nekkul dëggit am na ci loo xam ne dëgg dëgg kon damaa bëgg ñi nga xam ne si ñoo am pas-pas taxu Ousmane Sonko waaw nanu góorgóorlu mhm. jéem a waxtaan ak njiitum réew mi mhm. jéem a waxtaan ak kilifa yi nga xam ne si ñoo ko teg natt bii ñu ko teg waaw Ousmane Sonko mhm. ban mu taxawee ne damaa bëgg li Macky Sall damaa bëgg doon li Macky Sall bëgg a doon ba léegi. waaw ab coonoom noppalu. dëgg la de dëgg de. mais buñ jàllee ci loolu dañuy wax sëñ bi hmm. ci Ousmane Sonko arrestation ndax mën nañ koo jàpp yóbbu ko. waaw. xañ ko xañ ko. de maanaam li la dugal li ci kër gi. waaw mën na laa dugal ci néeg bi. Eh. Ousmane Sonko mi ci kër gi daa dugg ci néeg bi rek. mais mujj gi maanaam liñ naan sàcc tana sàcc tama yomb na waaye xam foo koy tëgg waaw xam damaa la dañoo toog dama ne la Macky Sall lu mu a def ci àdduna lu mu ne ko def def na waaw xalaatal sa xel waaw lu mu mas taxaw ne dinaa ko def waaw ba def ko jotee def na maanaam bu bëggoon a jàpp lu Sonko tëj ko dina ko moom moom muy ma moo yor gendarmerie waaw yor police yor liifi waaw yor lacrymogène leen jóg ñu jóg te Sénégal moom lu lu nooy bëgg ndax gën ngaa dégg ñu ne dañuy hmm. manifester bis sàngam gars yi jóg nañ fii dem ne dañuy kii ji Ousmane Sonko. waaw dañ koy jëli ji. waaw bëccëg gën ko defee laata 30 minutes kenn ku ne delluwaat na sa kër. tëdd na dem tëdd ñeenti jàpp ñu new lañ. Ah, te ñooñee ñu ci jàpp jàpp nañ ne bokk nañ ñi ñi dàq tax taxaw Ousmane Sonko. te est ce que looloo tax sax Ousmane Sonko keroog bi ñu génnee ñu ne xeex bi buñ ko génnee bi paana doon benn xeex buñ xeex ñu rey ñetti nit. déedéet man gisuma xeex xam lu tax gisuma xeex. waaw damaa gis ni ma ne damaa jàpp ne biir waxtaan la. ci waxtaan lay waaw ci nañ waxtaan ndax xeex bi amul luñu njariñ. Hmm. Ah, xeex bi sunu njaboot ak ñoom tey dañoo toogoon fi man leen deret ci ndaw yuy tuur dana bari loola ba léegi maa ngi jàkkaarloo ak moom wax am na am naa samay émission yu ma def wax ko ca ba ma ko ca wax dama ne leen deret ci ndaw yu tuuru dina bari waaye góor góorgóorlu balaa 2024 yeneen deret ci ndaw dana tuuru. te des na des na. loola waxoon naa sarax yi ñu ci war a def ki ko war a def mooy njiitu réew mi muy ñeenti nag yoo xam ne daf yu ñuul yu mu war a rey ci xibla yi ci ci ci ñeenti frontière Sénégal yi. Hmm? waaw ñett suuf benn bi ci ndox mi. defuñu ko ba léegi boobu ba léegi gone yaa ngi de waaw mais sëñ bi bu ñu ci wàllu politique bi làng googu yëpp dañuy wax ci Pawlish Mbaye mi nga xamante ni takk na jabar hmm. wéy juróom bu góor ne yëgu ko ci réseau yi la ko yëgee ba naqar la ko ndeysaan ñu ñu tuur sax xéewal hmm. ne bu ko déggee benn benn yoon ci at bi wala ñaar yoon ci at bi la koy dégg waaw xam nga ñooñu moom hmm. seeni biir dama dul bari lu ma ciy wax waaw la tax du ma bari lu ma cay wax mooy kii wéyee xam-xam ak kii wéyee lu ko neex ñoom ñaar dañoo dañoo bokkut. te koo nga tudd aw turam. waaw Pawlish. ñi nga xam ne si dañoo di ay sëriñ tey. Mm-hmm. mbaa boog <laughs> ay sëriñ mbaa uh, am na benn bis lëkkale na bool nu wax wax joo xam ne. Mm-hmm. maanaam fa yabaate tàmbale rek fa yabaate jeex rek foofu la ko tàmbale moom jëm kaw. kon kooko tey ji ay 18 boo ci dee dugg loo ci dégg yaa ca waaye nag ci cadre ñaax ndaw ñi. waaw. ngir ñu war a mën a am kilifa loolu danaa ci mën a wax. lu am solo am kilifa man day barke bi may dund tey. Mm-hmm. am ko. tey kenn mënut taxaw ci àdduna maa la ko jox gannaaw bu suñ borom wee. Mm-hmm. ngërëmul sama baay moo ko may. man sama baay damaa gërëm miraaran. ndeysaan. sama ko liggéeyal mu gërëm ma. Mm-hmm. sama sëriñ gërëm ma miraaran. sama yaay ji ma jur bëccëgub tey. laa ko mujjee tàllal samay loxo. mu ne ma ne na xam ne yàqoo sama mbootu sant naa la gërëm naa te looy wut da ko jàppe ñaari loxo alhamdulilah barke boobu yi nag mm-hmm. man moom laa am kon nag damaa bëgg képp koo xam ne si ne yaa ngi wéy waaw ci di jëf mbir mm-hmm. jiital ci say waajur ndax Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu yaakaar xaadim rasulillah mm-hmm. nit bu masaana ñëw ci moom na ko damay jébbul da koy wax ne ko ndax say waajur ànd na ci buñ ci àndu mu ne ko demaa nga waxtaan ak ñoom ba nangul la. Mm-hmm. nga soog a ñëw jébbul. mais sëñ bi booy waxee ci showbiz dafa mel ni xale buñ duggee ci showbiz bi commencé am succès commencé laal tuuti wecc rek fàtte démb. waaw du du du du du du showbiz. Mm-hmm. ñàkk xam sa bopp la. alal. Mm-hmm. alal ak pouvoir ñooyam. waaw lu mu la fekkeel dolli ko ba mu desum xel. lu mu la fekk dolli ko ba mu desum xel. ba mu des am xel xaalis. waaw. ak pouvoir yi ñuy xëccoo ay njiitu réew la ak yooyu mm-hmm. lu mu la fekkeel ci àdduna mën na koo dolli waaye am xel moom bu la fekkee ak moom da koy gën a nasaxal da koy gën a denc ni nga mel rek lay feeñ waaw tey jii da nga fi gis koo xam ne ne maanaam xëy na rek ñett nit topp ko wala ñeent nit mu jàpp ne moom àdduna li ci biir moo ko yor waaw gis koo xam ne ne maanaam vingt cinq mille francs yu mat bu fanaanee ci poosam jàpp na ne mën naa tukkal àdduna mm-hmm. moo tax ñu ne alal ak daraja ñoo yem muy poir waaw la fekkeel dolli ko waaye am xel moom da koy gën a wàcc macha allah kon xale yi dama leen di ñaax ku nekk ci mhm. showbiz ba ku nekk ci showbiz ba waajur mhm. nga tàggatoo foofu mooy gàllaaj gu mag gi waaw waaw fa la ñuy man day sama gàllaaj sama baay la ak sama yaay sama yaay liggéeyal na sama baay ba am ngërëmam mhm. man tam naa sama baay ba am ngërëmam liggéeyal naa sama yaay ba am ngërëm kon nag maa ngi leen di ñaax ñu toppaat waajur yi hmm. te fonkaat leen hmm. te jox leen dayo ba leen suñu boroom jox hmm. ndax bu dee baay baay moo la defal lépp ba nga ba man ah, waaw bu dee waajur moo gën a sonn ci yow ndax yonte bi nee na aljannati taxta aqdaamu umuha seeni ajjana mi ngi ci seen ndëgul tànki waajur waxul ne da ngay yëkkate sa tànk sa tànk waajur wu jigéen ngir am àjjana mm-hmm. waaye maanaam loo mën ci sukkal ko di ko daamal di daw ay bànnee xam di ko lépp loo xam si ne bugg nga di ko daw dee ko def waaye nag lépp loo xam ne si ne day xëy na suba nuyu la mm-hmm. muy daraja ak barke waaw te say waajur anuñu ca naa xam ne si ne bu la gën a seet bu la ma bu la na nga xam ne gan la da lay tàmm. da lay tàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon maa ngi nuyu bokk orta bokki internet yëpp. Euh, siyaar sëñ Lamine ak sëñ Moussa muy sama mm-hmm. xarit yu baax yooyu. waaw yi nga xam ne moom wax dëgg yàlla. sama kër gi miin ngeen ko. waaw waaw euh, euh, béréb bi sama béréb la. waaw mm, kontaan naa bu baax a baax. fii li fi nekk ñoo ko bokk. Mm-hmm. ndeysaan wallaay ñoo la gën a kontaan ndax. li gën a tax ñu téye ko moom kilifa gi di Serigne Ahmed mooy xam-xam. waaye laabiire gi nga xamante ni ñeme na koo laabiire xam-xam ba pare fonk bi nga xamante ni fonk na ko nitu yàlla yi fonk ko xam-xam ndax koo waxal ci nitu yàlla yi jëflante naa moom ci xam-xam koo waxal ci réew mi foo mënti dem rek ci boroom xam-xam yi dañ naan la xam xamante nañu moom ndax jëflante nañu moom buñ dajewul ca daara ja jàng jëflante nañu moom ci xam-xam te loolu li koy maye mooy wàcc sa bopp gëm ni xam-xam mooy yor adduna moo tax téena xam-xam jamono bii mii noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf